waaw sant yàlla sant yonent bi alayhi salaatu wa ah, moom mi ñu may ñu dund campagne bi ci jàmm ah, ba tey ñu teew fii tamit ah, motali suñu farata bi nga xam ni vote te bi ñu ñëwee wax ñu fekk population bu population bu déterminée loolu dafa doon lu pour un homme politique parce que xam ne balaa loolu mën taux de participation Euh, ginnaaw loolu aussi tamit ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di sant ñi ñu àndaloon liggéey bi muy sama policiers yi muy également surtout population yi nga xam ne réceptive woon nañ trop par rapport ak message bi nga xam ne ñu ngi ko doon jàllale euh, te mën nañu wax ne sax tey loolu moom moo leen génnee kon ñu ngi ñaan yàlla mu continuer nii ci jàmm ba jant so incha allah. waaw loolu nag euh, njaareem li am lay def ko aadawoo xëccoo bi mën na tar tar tar lool mais lépp day jeex ci jàmm bisu vote bi tamit aussi tamit nii la mës di mel. Pour remonter l'échelle des élections ici lool rek mo fi mun am muy jàmm té jàmm que ñaan yalla téel ñuko yalla saxalal ñuko fi muy élections yi ak élections yi li rek ñi nañ fi centre bi ba pare buñ fi taxaw nañ gën delu ci kër yi wax yi ñu ñëw voter si nañ delu ci kër yi euh, ragné mag ñi xamni mënu ñoo ñu parce que vote dafa doon lo xamni dafa war citoyen

wane ne nit ñi moom xam nañ li ñu bëgg bu ñu xëyee dañuy sangu ba set dox ndànk ñëw voté voteel ki ñu bëgg a voteel dem pour l'organisation ni ñu gisee matériel bi depuis démb ba léegi ñu ngi xool mais mel na ni matériel électoral bi aw na yoon ñëpp ñëw na seulement on a constaté que am na retard ci yenn démarrage bureau de vote yi xamuñu lan moo tax mais sinon dans l'ensemble ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. waaw surtout wax ak ndaw yi rek ñu voté seen conviction ñu bañ leen a comme ñi nga xam ne ñoom xaalis lañu yaakaar ñu bañ a topp loolu trop ñu voté seen conviction ndaw yi moom coalition defar sa gox Sénégal gépp constaté nañ ne à Ndiarème c'est pour les jeunes et les femmes ñu ñëw confirmer ko ci vote bi ñëpp am Sénégal jëm kanam c'est Ablaye Ba Gagné nekk maire Ndiarème Limameul pour la jeunesse. waa Ndiarème gros village la Baye Baye di Sey doon na ko wax ñu ngi koy sant di ko jaale di ko ñaanal yàlla fu mu tëdd mu si xam sedd ci kawam fii village la ñëpp a xamante ñun ñëpp benn lañ dañuy voté ci jàmm ci calme le meilleur gagne te meilleur bi Ablaye Ba lay tudd. waaw ñaan yàlla élection yi jàll ci jàmm ak salaam ni ñu commencé nii ñu terminé ko noonu euh, ñu def ko ci fair ci jàmm ndax dara xaju fii lu dul jàmm ak salaam ndax Sénégal moom réew jàmm la te yàgg nañoo voté fii moom élection moom du nekkul lu bees si ñun maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen remercier di leen ñaanal télé bi jëm ci kanam. waaw sentiment de plaisir ah, wax dëgg yàlla yàlla dogal na woteegu ma nag parce que dama ñëw fekk rang bi ma ne damay rang bu rangé ba sama tour jotee ma voté mais pour wax la deug sentiment de satisfaction a ah, di gërëm ñi andal lu ñëpp di ran campagne ba tay yalla suñu borom li sante gërëm ko def nañ ko ci jamm ba yalla may ñu fekk tay kon nak di ñu sante yalla suñu borom ñu may ñu def ko ci jamm ba fekk tay war a yalla yàlla ñaan yalla yalla may ñu ndam dara mu safa waaw gëna a yokk moom tout temps yaakaar na ci li newoon fa lañ nekk ba tay rek si jàmm si jàmm luñ woote jamm luñ mos a woote du fi ku ñu xamit ci jamm jàmm ñu xam kon yaakaar na bo ba tay ñi ngi def jamm du ñaan yalla may ñu eggalee ko ci jamm vraiment mu bañ am benn problème wax dëgg yàlla tey liñ fi fekk it dal na suñu xel fekk na nit ñi di foo di waxtaan te loolu mooy loolu mooy li gën ndax ñëpp ñoo fi bokk dëkk kon nag gisuñu dara lu jàmm jeexal élection yi ñaan ko yàlla mu jeexal ko jàmm jërëjëf merci. waaw kàddu gërëm rek xam nga lii nit du ko defal boppam bu ñu yàlla may ñu fekkee ñu nekk candidat si élection yi

li ñuy attirer seen attention rek mooy achat de conscience yi di am ci buntu yi euh, l'autre camp le camp adverse di ko organiser actuellement di coach nit ñi di len jox xaliss pour influencer sen vote lolu lu ñuy ñaawlu la lu ñuy dénoncer le énergiquement di wax ni lolu du lolu moy jëmele rew kanam rawatina fi nga xamanteni fi fii nañ dëkk suñu gox nga xamanteni ay ñew ju doole ñoo ci ëpp du ni lañ wara doxale ak ñom lolu dal vraiment loolu la ñuy dénoncer c'est le seul hic boo xamante ni gis nañ ko pour le moment mais bu dul loolu alhamdulilah tout se passe bien ñi ngi ñaan yàlla aussi mu continuer noonu euh, ci jàmm comme niñ ko defee campagne nañ ci jàmm euh, jeexal ko ci jàmm di ñaan yàlla aussi ci ngoon scrutin bi leer lépp jaar yoon ñu gagné leen ci jàmm ak salaam parce que ñun kat ci jàmm rek lañ xaj te jàmm rek la ñuy woote Nous ngeen que je éveil de conscience parce que il y a trop de mal qui a été fait le mal est trop profond nous def nous ñu parce que nous bi dafa doy Jotna, Nous ñun ñu jog taxaw liggéeyal suñu gox mal gox bi té di wax nañu yak yak ay musiba yu bon bon fi def bayiko durant 7 ans ñu ont fi n'importe quoi nous doyna ñom ñu jog une bonne fois pour toutes lolu la leen et puis que la population reste vigilante ñu tok bu ginaaw résultat yi ñu surveiller sen vote et puis encore une fois nous nga xamante dañ fi ñew ni ay doomu taxaw ci buntu yi di joxe xaalis loolu ñu ngi koy dénoncer ñu ngi koy dénoncer énergiquement encore une fois di leen wax nañ def ndank ku leen jox xaalis nañ jël mais buñ duggee ci mbañ gàcce gi ñoom ñoo fa nekk ak seen borom lii sëñ Adi Ñas wax doomu aadama amul njëg kenn du ko jëndee saaku ceeb mbaa nga jëndee ko ñaar téeméer wala ñeent téeméer pour tënk ko juróomi at loolu nañ ko bañ et ça encore une fois on dénonce jërëjëf